motax mu tambalé ci auzu billahi minash shaitanir rajim ndax jangoro ji daj na aduna bu ñepp masé won di takki masque ak di sore baña dajé té lepp lépp ndigalul suñ muntaxaa bañ ko yëkëté mom mo leen ci jëk jappalé kon nag nun itam nañ jàppale suñ muntaxaa ci magal gi nga xamné mo gëna reuy ci magal gi moo moo mooy sunu bis bi gëna a rëy itam muy bisub Serigne Touba bi di ñëw kuy ñëw rek na nga fàggu masque yu bari maak sama bokk yooyu daal noo ngi digal sunu njaboot rawatina jëwriñ yi mag yi képp koo xam ne may sa la noo ngi lay digal booy ñëw na nga sàmmoonte ak ndigal yi Serigne Mountakha yi jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. yéen bokk jullit yi yéen bokk taalibe yi. njabootu Sëriñ Tuubaa njabootu Maam Cheikh Ibrahima mun taxam ne li mu digle mooy dafa bëgg màggal Sëriñ Tuubaa gii ni ñëw nu waajal ko bu ñu màggal saal nu fas yéene ñëw te indaale li ñuy wax masque yi ak saabu yi ak sel yi sàmmonteeg mu baax ku ñëw na ko indaale ñu ñëw na noonu fekk suñ baa ko digal nag ku jullit ne mbaa murit ne fa mbaa soppee ne fa bu yaakaar Sëriñ Tuubaa te war ñu ci gi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 selma yor ndox moomu ñuy wax selba moom daal li ñu bëgg a wax xam ngeen ko waaw daal li ñu bëgg a wax xam ngeen ko mooy lii rek waaw li mu ci jublu wax mooy kii li sëñ bi jund lépp mokkal nañ ko biñ ko laataa wax yéen bokki juddit yi yéen bokki dëkkandoo yi rawatina ñi aju ci sëñ bi rafaat yi ngeen xam xam ngeen ko muy wopp li nga xam ne bi dig dina ci muy sëñ Muntaxa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 té loolu mooy li am solo fa tabaarakallaahu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi nuyu bokk talibé yi yëpp taalibe murid di nuyu julit julit yépp man Serigne Sidi jenn moom Serigne nar jenn talibé Serigne nar jenn Serigne muntaha dafa joxe ndigal képp kurib talibé tey màggal si na nga takk masque te fonk ko kon bépp talibé magal si na nga masque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 ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الأنام